del déglu del xool cant ak ngërëm ñel na leen Actubuzz di kaas sur Feeling Dakar TV mbokk internet ci contentement ak mbégte la ñuy am saa su ne di ànd ak yéen l' actualité phare ci wàllum people buzz jamono gi naka l' actualité phare ab tristesse la waaye itam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un rek lañ koy daal di dooree ki nga xamante ne rek moo di ajaratu mi nga xamante ne rek moom moo daal di génn àdduna mu nekk yaayu ki nga xamante ne rek moom moo di Mbaye Dièye Faye yaay daaro yaay daaro nag génn àdduna naka ni démb mu doon xibaar bu tiis ngeen koy gis noonu en image sur Feeling Dakar TV enterrement bi nekkoon tey fële nga xam ne mooy cimetière Yoff mu nekkoon jigéen ju mën góor jigéenu jàmbaar nekkoon jigéenu euh, vie seng fay gannaaw ba borom këram génnee àdduna ab diir nag boobee ba léegi kenn du ko gis kenn du ko dégg day daal di toog rek ci kër gi amee ab tawat ab diir nag waaye boobee ba léegi rek askanu Sénégal xamuñu ko ñu ci ëpp dañ doon faral di laajte way juru Mbaye Guèye Faye fan la nekk daal di ne wuyu boromam naka ni démb mu nekk xibaar bu tiis boo xamante ne Feeling Dakar TV day wéy ko suñu borom yaram àjjanay firdawsi rek doon euh, coow li nee na lu cour ba tey ki nga xamante ni moom moo di Doro Gueye ñi ngi xamal ne 24 terrain mu di ñaar fukki terrain ak ñeent nag moom la Doro jaay jaayaat ko ak ñi mu ciy jaay ñu ngi ciy tudd mam Boye Diao ñi ngi naan am na ay waykat di ci lim ay tur ay autorité ñoo xamante ne tey jii laale nañ ci wala takke nañ ci waaye ñu ngi ñuy xamal waykat bu suy boobee nga xamante ne rek koo wax mu ne la door Gueye mooy sama pap Doro mooy sama lépp nag toogul taxawul jamono gii ma ngay lijjanti koppar pour Doro mën a génn ndaxte Doro pare na sax pour teg 500 000 ci taabal gi li ci des mu daal di koy

millions avance ndax terrain bi soixante dix millions cinquante mille ak soixante millions la ko Doro doon jaayee am na ñoo xamante ne sax ba nii ñuy waxee ak yéen dañoo daal di ñàkk seen xaalis am na benn soxna buy firndal naka ni démb Doro da ko woo ko dinaa la delloo sa xaalis mu doon mbir mu jéggi dayoo ba sax ñu ngi xamal tey ci àllarba gi Doro Gueye ma nga fële nga xamante ne mooy ca tribunal waaye lu ci mënti am nag ñooy xamal ay soxnaam nag dañ doon laale foofee nga xamante ne rek mooy ca commissariat ba ku nekk daal di def bool andi añ ak kan ak kan ñi naan rek Clara bu ñu nee Clara xel ya dem ci Doro Gueye waaye ñaareel ba nag nee nañ jamono gii du kenn ku du rakki ay dara am nag amut nag sur actu buzz leeruma waaye nag l' actualité va au Sénégal kenn mënul wax ki nga xamante moom moo di rakki ay dara sur actu waaye lu ci mën am rek mbir mi dina daal di leer ba tey dañuy daal di wéy moom si daat cun nee nag ba mu kitee fële nga xamante ne moom moo di RFM ba léegi gannaaw bañ ko licencié par ki nga xamante ne rek moom moo di euh, directeur ba nga xam ne moom moo nekk ci euh, bile euh, bërëm El Hadj Assane ba mu ko ne rek daal day toog sa kër ba noppi daal di koy jot ab bataaxal si daat nee na booba ba léegi du Youssou mu ko woo du Bouba Ndour mu ko woo du Ndiaga Ndour ku ko woo amul ku sant Ndour daal di koy woo yemul ci loolu nee na moom sax amatul sax luy TFM ndaxte amatul sax jot ba leen di leen di seetaan au contraire dafa daal di nekk ci ab repos Sidaat Thioune daal di yëkkati yile kaddu mu nekk kaddu yu jéggi dayo moom El Hadj Bekaay Mbaye saa su ne ñu koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram gannaaw naka bañ ñenn ci ñi nga xam ne moo di ay autorité daal di récolter vingt cinq millions de francs CFA jébbal ko famille Lac de Guiers numéro de presse bi ah, bi dafa bari lool waaye teewul askanu Sénégal dafa mel ne dañoo fàtte wala naam boycotté Lac de Guiers Boucher nee dañ doon wax naan Lac de Guiers moo fi gën a yaru mbër bi nga xamante ne kenn ko dégg ci tey mbër mi moom lañ dégg dara est-ce que jotul askan wi war ko mën a jàppale ci tolof-tolof bi nga xamante ne daal dina ko ciy dal ki nga xamante ne moom moo di Bécaye Mbaye nee na ko mes ambitions dépense la disque d'or ndaxte loo moom xale bu mool bi nga xam ne day wangal moo ko daal di xamle yemu ci nee na je suis une femme waaye yemu ci sama ambition romb na sax ma am li nga xam ne mooy disque d'or waaye nekk star planétaire nekk star boo xamante ne Sénégal bu ñu tuddee sama tur sax naam ngonga la ñuy wax ndaxte moom mi nga xamante ne moom moo di borom masse électrique bi nga xamante ne rek en 24 heures clip bi laal 1 million de vues mi ngi def buzz sur la toile askanu Sénégal di laajte lan mooy secret ndaxte loo ndaxte nee ah, li nga xamante moom moo di bile divorce nag jamono gi mi ngi def feuille flamme sur elle itam ma ngay xool ni mu gën a baaxee na mu gën a moolee mu koy daal di wéel sur la toile ba tax na jamono gi ñi koy soutenir jéggi na dayo lool Mario Mbaye askanu Sénégal di ko laajte fan la Mario dem ca diwaanu Italie Mario wax du ci laale du ci takke lu ci sax yoo bàyyi ndaxte ñeneen ki nga xamante ne moo di ndaxte nekkul woon ci dëgg nekkul woon ci yoon na mu daan sëyee jégg na dayo mu doon koo xamante ne askanu Sénégal dañ ko narloo sur Actubuzz muy joxe conseil waaye itam nekk jigéen ju mun góor nekk jigéen joo xamante ne yaa Seyda Ourey Thiam Préra mu di way juru Vigie bu ñu waxee Vigie mooy gone gi nga xamante ne xale bu jugg ne Vigie moom lañ daal di bëgg nag daal dinay def ab interview wax ci ki nga xamante ne mooy doomam mu di Vigie yemul ci loolu waaye itam nee na da koy sant ko gërëm ndax mooy taawam bëgg na ko teral na ko suturaal na ko des fois day jot ay question wala sax ñenn ñu koy laaj moom ni mu nga xamante ne Apia Seyda la naka la mën a bàyyee li nga xamante ne rek mooy doomam nekk ci musique nee na mbir mi du loolu na nga am diine am xool fi ngay teg sa nee na saa su nekk moom loolu rek lay daal di dénk doomam yemul ci loolu moom Houraye Thiam Préra daal dina ciy nga xamante ne mooy vige yi na ne am na droit wax doomam dama lay ñaan am na diine am na lislaam am na yar am na teggin ndaxte kat loolu la ñuy saytu ci jigéen waaye itam yokk ko wala sax gën ko ñaax ci actualité Sénégal rawatina ci réew mi ni muy doxee moom Oureytiane Prera daal di kaddu ba tax na rek ko daal di nawloo sant borom gërëm nee na ko 21 ans de mariage du dóor du saaga na ko tey bu ma invité woon confidence sax amaana mbégte rek laay dund sama sa borom kër wala sa soxna li nga dund ji nga xam ne référence la di waaye itam ne ne ki nga xamante ne mooy doomam ku mu bëgg rek bëgg na ko te itam na xool koo xamante ne am na diine am na teggin am na yàq askan wi di laajte moom ay Aïssatou Faye moom mi nga xamante ne moom moo di doomu Mansour Faye moom mi nga xamante ne Marème Faye Sall mooy bàjjanam koppar bi nga xamante ne yor na ko 25 millions de francs CFA fan la ko war a mën a jëlee ba ñu jàpp ko nag mu daal di neexal ñaari policiers yi ci 300 000 francs CFA nag ba noppi dem boole ko papam nag mu di Mansour Faye Mansour wéye la ab nag ba ñaari policiers yi nag jamono gii nag dañ leen fas yee raje teggil seen ndomb tànk ba tax na askanu Sénégal li ñuy laajte moo di Aïssatou Faye mii ak tuuti tuutiwaayam koppar gu bare bare bi nga xamante ne rek yoroon na ko ci oto otom ñu jàpp ko ci booru Kébémer fan la ko jëlee lu ci mënti am ñu ngi naan ndax nekkul koppar gi baayam salfaañe di Mansour Faye ak lu ci mënti am jamono gii moom mi nga xamante ne moo di doomu Mansour Faye bu ngeen fàttalikee amoon na fi ay nag yu pata ay nag yu ngande yoo xamante ne nit ñaa ngi laajte fu nag yu jóge déeta waaye koppar gu takkoo takk ak réew mi xiif gi ñu xiif a tax na rek ñeneen Aïssatou Faye mi est-ce jotul ñu daal di koy édit doomu Mansour Faye mi nga xam ne daa muuru doon ab ibaadu ak lu ci mënti am jéggi na dayo may na ñaari policiers yi 300 000 ba noppi daa leen wili pandé ne leen mayuma leen dañ maa nappoon doo nga tax tax ma leen waaye ak lu ci mënti am koppar gi nga xamante ne ñi ngi koy salfaañe jéggi na doyo waaye sur actubeuse doo Gueye ak ñaari jabar yiy xeex doy na waar asalaamaaleykum waa Sénégal la le monde entier asalaamaaleykum les sénégalais de la diaspora tey nag maa ngi ne taxaw ak sama mag sama xarit muy Waly ko Seck nga xam ne nag il fait partie des parrains ah, ci sama bis boobu nga xam ne fa laa jëm muy de Paris le ma ñëw fi nag set si ko am fi am fi satisfaction bu doy sama xol sedd trop ma comprendre trop donc mon ami mon frère diaspora baa ngi noonu le vingt neuf maa gars yi euh, lii challenge la teel a génn nga wane sa tefe Sénégal seen it ku ne xam ne semi nocturne nocturne la teel leen génn jàppale seen doomi réew jàppale suñu artiste suñu star teel a génn mooy wane ne doom nga Sénégal challenge bi mooy teel génn teel a génn salaam sa nga sàcce ñëw déggee vingt une heure si ñu yéeg ñu ngi mu toj ko mu daal di ñibbi parce que génn bi kalam jëm moom bés la ñu xaar. incha allah.